jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi mbokk yi daal di siwaat ñu baaxo see ànd ak yéen samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak euh, seen mbokk Abdou Khadre Seck tey nag euh, mbokk yi ginnaaw bi ñu nuyoo auditeurs yi ak auditrices yi ak euh, Mamadou Diaw Diallo mi nga xamante ni moo nekk ci technique bi. tey ñu dellu am mbégte daal di invité euh, Maguette ja euh, soxna Maguette moom nag euh, responsable politique APR la ci Pikine Nord ba pare tamit mu nekk membre ci cadre yi nga xamante ni ñoo nekk ci parti bii di APR bokk ci cellule communication benn bokk yaakaar ba pare tamit mu nekk secretaire général réseau national femme face au développement du Sénégal Euh, xam ngeen ne nag suba ci dimanche ji la 8 mars muy bis bi nga xamante ni ci àdduna bi dañ ci delloo njukkal jigéen maanaam di si delloo njukkal ñi nga xamante ni ñooy soxna yi euh, tey nag danañu waxtaan ak moom ci lu jëm ci euh, kuréel gi nga xamante ni moom mooy secretaire général bi jigéen ñi tamit ban taxawaay la ñu war a amee ci njaboot gi ak 8 mars moom nan la ko gisee ak lu jëm ci wàllum réew mi tamit ban taxawaay la si jigéen war a am soxna si ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la gërëm bu baax Abdou Khader ci invitation bi ma invité tey fii ci Rewmi FM. Euh, soxna Maguette Dia yow nga nekk responsable politique APR euh, suba ci dimanche ji di li nga xamante ni moom mooy 8 euh, mars 8 mars bis la boo xamante ni moom lañ jagleel jigéen ñi ci àdduna bi nan nga ko gisee yow. waaw ginnaaw bu ma nuyoo auditeurs yi ak auditrices su mi FM yi yëpp ak mbokk Sénégal yëpp ñuy te déglu euh, damay wax ne rek 8 mars moom dafa nekk journée boo xam ne yàgg nañ ko di ko di ko di ko feetu. Mm-hmm. donc mu nekk journée boo xam ne dañ ko inscrire ci agenda international ñëpp di ko di ko feetu donc Sénégal tamit desul ginnaaw bokk na ci ñi nga xam ne ni journée boobu seen journée la euh, ministre ministère de la femme de la famille et du genre. moom euh, ci euh, journée boobu faral na ci di ci def ay ay ay ay ay événement maanaam di di di wax ne jigéen ñi ñëpp nañu dajaloo ak képp fu waay mën a nekk mu nekk ci société maa xam fu jigéen di yëngu daal ñu dajaloo fa toog waxtaan seen biir xool lan mooy euh, palaasu jigéen ci di société Sénégal bi lan moo seen jafe-jafe lan la ñuy dund comme problème Euh, lan lañ bëgg ñu ñu lijjanti leen ko maanaam ci yan wàll pàcc-pàcc yi nga xam ne nii mooy ci développement réew mi ci yan place lañ ci am ak yan place la ñu war a wut pour occuper ko ak naka la ñuy toogee ci seen place yooy mm-hmm. donc mu mu nekk bés bu am solo pour pour jigéenu Sénégal yëpp ndax boo xoolee réew mi jigéen ñi ñoo fi ëpp ëpp nañ 50 pour cent ëpp góor nii mais yàlla dafa def euh, ak société Sénégal nu mu bindoowee. Euh, jigéen cër bi mu war a am euh, gaa ñu ngi ñu ngi koy xeex euh, affaire yi mu ngi mu ngi avancé mu ngi dem ndànk-ndànk waaye ba tey des na lu bari ndax am na ci jigéen ñu bari ñoo xam ne nii peut-être nañu bëggee woon mu demee demewu noonu donc gouvernement bi nag mu ngi gunge fa jigéen ñi defal nañ leen ay programme yoo xam ne ni programme yu am solo la pour ñoom déjà bu ma ci limee DER bi rek DER bi am nañ ci pàcc bu am solo muy financement femme fan yaa ngi dégg euh, président de la république demoon na euh, fële ca jam ñaajo euh, di évaluer ñuy évaluer DER bi donc mu ne nañu dolliwaat li nga xam ne nii moom mooy ndimbal gi ñuy dimbali jigéen ñi ci seen financement mm-hmm. te ci biir loolu ñun daf ñu cee fekk ndax euh, dañu bokk ci benn réseau bu tudd réseau femme face au développement réseau boo xam ne nationale la ak international aussi parce que am na ay jigéen yu nekk ci diaspora bi ñu ci bokk réseau boobu nag bi mu commencé yëngatu yàgg na euh, dañuy yëngatu ci ay consultation gratuite d'accord léegi euh, soxna Maguette dana ñëw ci loolu mhm. léegi yéen jigéen ñi mhm. nee nga maanaam cër bi ñu leen war a jox ci ci réew mi maanaam ci ban cadre euh, cër ngay wax ci maanaam cër bi ci lan. waa cër yi moom yaatu na cër yi yaatu na mu ngi commencé ci euh, xam nga président Ablaye Wade bi mu fi nekkee woon dugaloon na pour jigéen li nga xam ne mooy loi sur la parité ñu ne parité dans toutes les institutions parité à tous les niveaux ci biir parité boobu ñu gis ne changement commencé woon na am ndax assemblée nationale bu njëkk jigéen ñi bari wuñ fa woon léegi jigéen dañ ne ci liste électorale yi. bu góor nekkee jigéen moo ci topp wala bu jigéen jiitoo góor topp ci ñu di ko defee noonu léegi nag loolu dafa tax ba léegi jigéen ñi place bi ñu ngi koy occupé ci côté institution yi ak côté li nga xam ne mooy gestion réew mi donc am nañ ci wàll bu am solo boo demee ci mairie yi tamit noonu la da ngay gis ne premier bu ñu falee maire ba pare euh, adjoint bi jigéen lay doon premier adjoint ñu ne jigéen la deuxième bu nekk ko troisième adjoint jigéen ainsi de suite. mais loolu loolu mooy jox cër jigéen. non du loolu kese loolu am na ci solo parce que bu njëkk li ñu daan seetlu mooy lépp lu jëm ci wàllam décision ah instance décisionnelle mooy fi ñuy fi ñuy fi ñuy na na nasee affaire yi ak fi ñu koy noccee jigéen ñi amuñ fa woon place. ci cadre politique boobu parce que jigéen gis nga ne jigéen ñi ci politique bu ñoo ci gën a sonn te sans ñoom góor ñi duñ dem mais place yi leen war a jox moom lañ dul occupé. boobu ci cadre politique lan la rek kese la maanaam si beneen cadre muy cadre société tey nga dem ci société yu bari mu doon société privée mu doon société publique national da ngay gis ne jigéen ñi duñ fa bari peut-être xëy na li ko waral mën nañ koo xaw a analyser tuuti mu nekk peut-être ñàkk jàng bi ci jigéen ñi ñu ci bari peut-être seen jàng sorewul bu ñu duggee école du yàgg ñu bàyyi école dañ leen dem dañoo war a dem sëy am borom kër toog seen sëy toppatoo seen i doom ndax loolu la ñu maam yi peut-être xamee woon ci ci jigéen mais avec société bi nu muy évoluer gis nañ ne léegi jigéen ñi dañuy jóg di liggéey di gunge seen jëkkër yi di leen jàppale parce que jamono dafa naqari donc ci kaw loolu jigéen ñi dem ba am pouvoir boo xam ne ni peut-être ñenn ñi nga xam ne jàng nañ tey war nañoo mën a toog ci ay places yoo xam ne góor ñi moom lañ daan yor bu weesoo loolu nga dem si métier yi métier yoo gis ak armée bi ak fépp. gis nga ne léegi jigéen ñi ñu ngi fay dugg ndànk-ndànk boo demee ci gendarmerie jigéen ñaa ngi fa nga dem police jigéen ñaa ngi fa ba ba ci militaire yi jigéen ñaa nga fa médecins yi waxaale ma ko ñeneen ak ñeneen donc place jigéen mu ngi gën a yokk société yi aussi jigéen ñaa ngi jël poste de responsabilité muy poste chef yi responsable yu mag yi jigéen ñi ñu ngi leen di defal promotion di leen jàppale même si seen recrutement am na société yoo xam ne dañ naan nañu bëgg jigéen ñi profil jigéen di si bokk donc loolu def dañ leen di privilégier parce que xam nañ ñoom seen capacité xam nañ seen mën-mën xam nañ seen wareef te xam nañ li ñuy def te duñ ko def dañ koy def te du ànd ak benn wax ak benn coow seen liggéey dañ koy liggéey ni mu waree. Ah, donc place boobu moom. occupé nañ ko ñu ngi commencé di ko occupé ba ci ay. liggéeyu mécanicien ak pilote d'avion ak yeneen ak yeneen donc li li affaire léegi mu ngi yaatu ñu ngi ubbil jigéen ñuy ñëw di dugg mais ba tey am na yoo xam ne nii dañ ko dafa des des na ci maanaam wàllum discrimination bi à l'égard des femmes parce que parfois nga nekk jigéen nekk ci benn société wala nekk foo xam ne ci ay biir ay góor ñu di la métital wala di la harceler ah wala di la jéem a. Euh, sàkku wala di la jéem a nax dugal la ci ay affaire yooyu yëpp jigéen ñi léegi war nañ si mën a yeewu ba loolu ñu bañ ko nangooti am seen personnalité boobu ba nga xam ne ni yenn yi duñ ci dugg. donc dem nañ ba nga gis ne jigéen ñi mën na jiite sax ay entreprise yoo xam ne ay góor a ci nekk mais mu am personnalité boo xam ne dina ko mën a gérer nu mu waree te du am benn coow du am benn problème. waa mais xam nga tamit euh, jigéen ak góor pour ñu yem ci entreprise yeeg euh, yeneen place yi. Euh, est-ce que du nekk jafe-jafe su dee jigéen boo xamante ni tey par exemple tey war naa dem sëyi boo sëyee même mën ngaa di xëy di liggéey mais jigéen dafay tollu diggante jigéen dafay nàmpal yooyu tamit est-ce que nekkul loo xamante ni dafay wàññi tamit euh, yéen doole bi ngeen waroon am dëgg-dëgg. waaw loolu loolu moom mooy li ñu tuddee discrimination positive à l'égard des femmes mooy maanaam jigéen ñi yàlla dafa leen bindoon noo xam ne ñoom ñooy ëmb ñoom ñooy wasin ñoom ñooy nàmpal ñoom ñooy jur doom loolu yàlla moo ñu ko jox cër la. mu nekk loo xam ne ne nag ci yaram la nekk naturel la kenn mënu ci dara nga bañ ko ak nga bëgg ko loolu day am mais nag loolu ci kaw loolu terewul ku jigéen ki liggéey terewul ku jigéen ki occupé ay poste de responsabilité. d'accord ndax xam lu tax ndax jigéen ñi tey yàlla may na leen ci biir loi bi. boo ëmbee am na am na fooy tool dañ la naan nga dem toog noppalu su ko defee nga daal di jël congé. keneen mun na la remplacer congé maternité. boo toogee sa congé maternité nga dem ba wësin am doom ñu may la congé boo xam ne ci ngay nàppal sa doom ba trois mois boo nàppalee sa doom ba 3 mois nga commencé dem liggéey léegi sax amul luy tere ci biir société bi pourquoi pas ñu ngi koy gis ci dëkk tubaab bi pourquoi ñun duñ ko def mooy maanaam yow nga yor sa bébé. dugg dugal ko sa oto ànd ak moom boo demee ba sa bureau ba bu soxlaa nàmp nga nàmpal ko loolu du la tere liggéey sa liggéey aménagé ko fa benn place boo xam ne fa nga koy teg di nekk ak moom. su baag moom guddeeg ba soxna si yow euh, soxna Maguette ja euh, est-ce que jàpp nga ne tey par exemple tey euh, population sénégalaise bi maanaam Sénégal ñun ni ñu bindoo ak réew mi ñu nekk nit ñi góor ñi ni ñuy xoolee jigéen ñi. est-ce que considéré nañ leen que war nañoo mën a nekk ay njiit war nañoo mën a nekk yenn leaders yi ak tamit vis-à-vis est-ce que góor ñi jox nañ benn cër bi ak benn gëdd bi jigéen ñi. xam nga cër bi nga war a am yow yaa koy xëccool sa bopp du góor moo la koy jox wala jigéen moo la koy jox déedéet. yow yaay am sa personnalité bopp yow yaay am sa mën-mënu bopp yaay am sa xarañte ak sa fula ak sa fayda heure xale jigéen yi bu ñu waree jàng ñu jàng fa ñu war a jàngee bañ a nekk ci ay caaxaan bañ a nekk ci ay fo góor ñi da leen ci dugal am seen fulla gis nga fi xale yoo xam ne ni dañu dem ba xarañ nañ leen di def concours bu amee ñoom ñooy jël pay jigéen ñi ay miss mathématique miss science ñu di leen jox ay prix mais ñooñu lan moo ko waral c'est parce que dañoo gëm seen bopp dañoo am fulla dañoo am fayda te gëm li ñuy def muy jàng ndax sa sa yaay ak sa papa bu la bàyyee nga jàng te léegi sax léegi société bi mu ngi changé waajur yi ñoo laa tere xale yi pour ñu jàng ñoo leen daan dagal seen jàng parce que dañu war a dem sëy wala daw ñu war a mais ñu ngi ñu ngi leen di wax ñu ngi sensibiliser parents yi pour ñu bàyyi xale yi pour ñu jàng te bu ñu jàngee ëllëg dinañ mën a tekki mën a jariñ seen njaboot mën a jariñ seeni seeni yaay ak seeni papa parce que gis nañ fi ay jigéen yoo xam ne ñoo yor kër yi ñoo ko yor te li tax ñu yor ko jàng la ba am sa diplôme nekk sa biir entreprise di liggéey te doo si am benn problème kon loolu pour man foo problème góor mënul tere jigéen def lu mu war a def li des mooy ci wàllum sëy bi ngay wax noonu euh, c'est vrai que jigéen war na aussi sëy am jëkkër ak yooyu yëpp mais loo gis waxtaan la ba jubóo ndax ci boo boo boo nekkee sa borom kër nga xamal ko ne man nekkuma ci caaxaan nekkuma ci ay fo dama bëgg liggéey pour mën a tekki mën a am mën a indil njaboot gi ñun ñaar ñu bokk yor kër gi defe naa góor bu baax du ko bañ te diina yi bañu ko. donc dafa naa ne loolu war a poser problème kon benn góor mën a tere jigéen mu liggéey yow kay yaa yow miy jigéen yow yaa xam sa bopp am sa la am sa fayda xam li nga bëgg xam sa objectif lan la. Ah, mais mais gëmloo yéen gëmloo nañ leen parité ba nga xam ne ñenn ñi sax bu ñu teree seen i seen i seen i borom seen i dañuy lànk. parité bi du côté ay maa yow su sunu su fi ñu nekk ci couple bi ñoo tolloo lu ma neex laay def wala lu ma neex laay wax déedéet parité bi lan la mooy dañu seetlu woon ne. Euh, responsabilité yi jigéen waroon a am pour mën a dogal yooyu la amul woon donc loolu moo indi ñu ne parité parce que parité mooy fu jigéen ba jàngee góor fa jàngee fa ñu tolloo ay diplôme lan lan moo war a tere mu euh, tere jigéen bi mu occupé poste boo xam ne góor gi mu ngi koy occupé amulu koy tere. donc comme amul koy tere loolu loi bi dafa ne ñoom ñaan ñëpp ci tolloo mooy à compétence égale euh, kii responsabilité égale. donc il faut que jigéen ñi aussi ñoom ñu xam parce que ñi ci bëri aussi bëgg nañ mais dañoo ñemewul dañuy am lu ñuy sor wala dafa ñuy ragal alors ko fii amul dara loi bi may na la ko su la ko loi bi may nag da koy danga koy jëfandikoo ba mat. da nga jëfandikoo ba mat fi góor gi nekk boo jàngee am la nga war a am ëpp ko sax ay lijaasa war nga mën a ëpp am yow lu raw loolu mu am. waaw mais bu l' essentiel mooy. li li cadre bi ngeen nekk di liggéey na doon cadre boo xam ne ku ne di nga jox cër sa morom ku ne da nga sa morom lépp lu ngeen di def ci cadre liggéey bi ngeen koy def. mais yéen euh, tey par exemple tey euh, lu jëm ci euh, état bu Sénégal ak ni nga xamante ni moom lay doxee ndax yow gis nga ne cër bi nga xamante ni moom la jigéen yellool jox na leen ko. waaw seetlu nañ ne nag ci at yi ñu tool nii maanaam bu ñu bu ñu bàyyee ki nga xam ne mooy régime Ablaye Wade. commencé woon na ko moom gëmoon na jigéen torop moom wax dëgg yàlla macha allah ministre yu bari ci la leen defal promotion euh, Macky Sall ñëw moom it loolu teggewu ko tànkam foofu da ko gën a yokk ndax lañ daan gis ci poste ministériel jigéen jigéen ñi am ko dafa ëpp dafa gën a yokk donc boo xoolee gouvernement bi rek li ci nekk ci ay jigéen bari nañu ñu jox am ci nag ay cër yu mag kon ça veut dire que moom mu ngi def li nga xam ne moo ko war boo seetloo ci jamonoy Abdoulaye maam maam Madior Boye mu ngi fi war nekk premier ministre bu nekkoon nag jigéen bi ñëkk occupé poste ñu dem Macky Sall ñëw def mi Mimi Touré premier ministre Aminata Touré donc mu wan la ne cër bi ñu war a jox jigéen ñu ngi ko koy jox bien que nag peut-être des na te nu mu desee mooy euh, ci wàllum peut-être euh, bi muy commune yeeg. collectivité territoriale boo ko seetloo jigéen ñi bariwuñ fa jigéen ñi barewuñ fa donc il faut que aussi ñuy pousse jigéen ñi comme ci wàllum politique la ci lañ koy defee ñuy pousse jigéen ñi ba nga xam ne su tànn jotee ñu war a bokk ci ñi war a tànn pour ñu jiite parce que dara terewu leen tey ñu occuper poste ay maire wala occuper poste ay mm-hmm. conseiller mm-hmm. wala ay ay ay ay ay mm-hmm. chargé développement waaw occupé post yu mag donc foofu la ñu war a gën a liggéeyee côté boobu pour man la ñu war a gën a liggéey pour pour pour fexe ba nga xam ne ni jigéen ñi ni ñuy yëngatoo ci politique ni ñuy sonnee ci politique ak ni ñuy dawee ci politique ñi ngi tàccu ñi ngi fecc ñi ngi def lu ne góor gu bëgg animation jigéen ñi ngay woo ku bëgg électorat bëgg gañe jigéen ñi ngay woo euh, ngan la waaye nañu fexe ba suñu jigéen ñi tamit euh, cër ba ñu war a am ñu am ko ñu xeex ko ba am ko nag affaire bi tamit du ñu ñëw rek jox la ko na la yow yaay jël lii yow yaay wane na yow mën nga ko nga xeex jëm ci loolu nga woo say moroom jigéen ñu gunge la ci ndax ñun force lañu ñun force lañ ñun suñu àndee booloo rek xajuñu si benn góor donc loolu ñu mën a toog di xaar jigéen góor ñi di ñu séddale naan leen lii ngeen di jël wala lee ngeen di jël war nañ weesu foofu war nañ dem ba ñun suñu bopp jëlal suñu bopp en charge li nga xam ne mooy suñuy problème suñuy problème mu commune ñu di ko mën a lijjanti nekk maire nekk ay responsable. waaw mais est que tamit soxna nekk ay autorité waaw mais est-ce que tey est-ce que tey askan bi xam nga tamit yéen euh, Sénégal ni mu ni mu mel euh, Sénégal est-ce que pare na pour maanaam jël jigéen xam nga Sénégal boo xoolee jigéen ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ñëpp di politique. musuñu fee fal kenn président de la république am na suy bari ñoo xamante dañu dem élection mais presque mën nañu wax ne kenn du leen kenn du leen voteel loolu dafa am na non mais mais dafa nekkul dafa ay zéro zéro nangam pour cent. déedéet dafa néew mooy li ma la wax. dafa néew non ci élection présidentielle comme kan. non élection présidentielle moom faraguñ fi jigéen mu nekk. président non dama ne non seulement waxuma la fal waxuma la fal. mais candidat yi ñu am ñu nekk jigéen di dem ci ay élection présidentielle ñooñu askan bi du ñu leen voteel ñooñu minimum la ñuy am beneen bi tamit beneen bi tamit tey par exemple tey ci politique gu Sénégal mhm. est-ce que gis nga fi benn femme boo te ni tey mhm. euh, maanaam presque ay responsable communal la ñuy doon mhm. soo fi duggoon fa jigéen ñi ngay dégg ñëpp ay Aminata Mbengue Ndiaye euh, commune seen commune nga ko fay dem maanaam région bi ñu dëkk boo demoon ay dëmboo a wax ñu nekk benn femme nationale mais ay femme nekk élection présidentielle presque kenn du leen kenn leen voteel Sénégal ci boppam moom moo pareegul. pour jël jigéen teg ko ci kanam mu jiite. man jàpp naa ni Sénégal pare na pour def ko man loolu laa jàpp. te li tax ma wax ko mooy euh, fi may waxee mooy fi ma la doon wax léegi góor jigéen ñi seen bopp ñoo ñoo ñemeegul pour pour jëm ci loolu am ambition yooyu pour man ñu loolu la. problème bi du góor ñi de gis nga góor tey jigéen bu jugoon ne damay def li billaay wallaay alizim bu bu bu góor ki xamee ne kii su ma ko poussé mu def wala kii am na capacité yi tax mu war a mën a occuper poste bi ku góor ki dina ko si jàppale mu def ko man loolu laa gëm mais xam nga li des mooy lan ñun jigéen ñi ñu jàppalante suñu biir ndax comme ni ngay wax affaire élection yooyu ñan ñooy def élection góor ñi la ak jigéen ñi ak jeunes yi mais yow bu fekkee ne yow sa sa sa góor ñi ak. Euh, jigéen ñi nekk ak yow surtout jigéen ñi ñoo ëpp tey maa la naan électorat boo ko seetee électorat jigéen moo si ëpp ak foo mënti dem ci réew mi ñoo fa ëpp comme ñoo fa ëpp lu tax ñoom du ñu booloo ànd nekk benn jàppale ki nga xam ne mooy candidat bu jigéen mu dem fa mu war a dem. foofu la coow li nekk. parce que jigéen ñi dañ leen di manipuler góor ñi ñoo leen di manipuler dugg seen biir jaxase leen bu ko defee ñoom leader ka jigéen ka nga xam ne ni moom porté na moom. candidature am war a mën a occuper benn post da responsabilité wala nekk candidat ci benn élection dañ lay préféré dem jàppale ku góor ki ba ñu jàppale seen morom bu jigéen alors que ñoom li waroon ci ñoom mooy jàppale seen morom bu jigéen ba mu yegg fa war a yegg non du question wóolu man jàpp naa du wóolu du wóolu mais peut-être dañu xamagul ñoom seen place fan la ak fan yu mën a yegg ñoom la li leen yàlla may tey ñu mën a yegg ba fu gën a kawe ñoom jàpp naa ne ñoom sentir guñ na ñoom war nañ mën a yegg foofu. man loolu laa gis man man mais xam nga tamit waaw mais xam nga tamit euh, soxna màgget tey euh, Sénégal soo xoolee tey par exemple tey euh, am na ñoo xamante ni tey xam nga jigéen tamit mm-hmm. fit bi góor di am. Euh, amaana ji amaana jigéen mën na ko bañ a am. te réew te réew tamit. Euh, fit fit fit daf ci bokk. daf ci bokk waaw beneen bi beneen tey am na ñoo xamante ni tey ay góor ñoo xamante ni tey par exemple imaginal nga dem euh, nga dem police. Mhm. ñu ne jigéen moo jiit jigéen moo jiite police. jigéen jiite wu na fi police. mais gisoo problème kese la la mujjoon doon jur. ndax ñooñu non ñooñu dañuy jàpp ne est-ce que jigéen war na mën a jiite ñoo ñëpp. c'est que xam nga aussi xam nga problème parce que dañu dañu yàgg jàpp na jigéen waru mën a nekk njiit. surtout mooy fi nga wax police ñëpp xam nañ police nu mu mel ak danger yi am ci police. n'est-ce pas ak risque yi ngay jël ak yëpp mais du tee yàlla mu ñu suturaal ba nga xam ne nii au moins buñ doon lim tam dinañ lim ay ñaar ba ñetti commissaire yoo xam ne nii ay jigéen la ñuy doon te léegi loolu lim boobu mu ngi gën a yokk di law di dem parce que police caare bee ñu nekk ne Pikine tey jii jigéen a ko jiite te amul benn problème. moo tax may la affaire bi ci mentalité nit ñi la donc mentalité boobu il faut ñu changer ko du doon loo xam ne nag dafay ñëw léegi léegi léegi mais processus lay nekk maanaam dañ ciy liggéey di ci dox di ci wax di ci ñaax nit ñi di ci sensibiliser nit ñi ba bu ëllëgee loolu dinañ ko dugal seen bopp ñu jàpp ne la war a góor ma war a mën a nekk occupé ko jigéen war na fa mën a nekk te du yàq dara parce que ñi nga gis ñi nga lem noonu ñu nekk ay commissaire de police xëy na. Euh, peut-être am na yeneen problème yoo xam ne bokkul ak le fait que ñu nekk jigéen moo leen di boole ak nit ñi ba ñu ñu ñu di leen di wàccee walla di leen yóbbu feneen man jàpp naa ne xëy na du loolu mais euh, jigéen ji war na mën a yore commissariat war na mën a yore mairie war na mën a yore leneen ak leneen su fekkee ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf mooy ñi nga xam ne ñoo ko war a jàppale pour mu jot si jàpp def nañ seen xel ne kii war naa mën a dem donc nañ ko pousse mu dem kii war naa mën a gérer lii nañ ko jàppale mu gérer ko foofu la coow li nekk foofu la problème bi nekk parce que tey am na ay maire yoo xam ne ay jigéen la bien que mais am na tey Pikine boo fa demee département bi yëpp benn maire bu jigéen moo fa nekk Fatou Bintou Ndiaye la tudd. Mhm. donc ñun aussi war nañ mën a fexe ba promotion bi ñu war a def ci jigéen ñi ñu def ko ba yi nga xam ne nii tey. fu góor mën a taxawee di laaj dara jigéen war fa mën a taxawee président sax wax na ko nee na pourquoi pas ñuy encourager candidature féminine yi jigéen ñi dañu war a poser candidat c'est da ngay dem fenn doo gis benn jigéen bu ñemee wax loolu mooy coow li mooy fit bi ngay wax rek nangu naa ko jigéen aussi boo nekkee ci cadre benn bu bu ci mel ne cadre politique tey bu ñu nekk wala beneen cadre sax bu nekkul politique affaire yi xëccoo la donc yow da ngay war a mën a nekk koo xam ne ñeme nga xëccoo. ànd nga ak sa fit tàggat nga ñi nga war a tàggal ba ñu war la mën a puus nga dem nga def ko liggéey ah. boobu boo ko defee rek yàlla dafa la ci may sutura bu dee am nga fulla ak fayda ci li ngay def waxuñu nag nga dem ba ci biir di ci dugal ay caaxal lu ci bokkul hmm. su boobaa nag yow yaa euh, kii sa bopp d'accord mais nag uh-huh. jàpp naa ne nag wax dëgg yàlla dafa jot pour jigéen ñi nag war a mën a gën a avancer gën a dem gën a ñeme affaire yi te xam naa ni incha allah dina ñëw jërëjëf euh, soxna Maguette Dia mbokk yi moom ngeen di dégg moom mu nekk responsable politique APR nekk Pikine Nord bokk ci euh, membre cadre APR yi moom lañu invité tey euh, li tax ñu invité ko nag bokk na ci 8 mars bi nga xamante ni suba ci dimanche ji la yéen a ngi déglu rajo Réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi mooy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h mais soxna si 8 mars benn fan ci at mi yëpp. ak jigéen ni mu amee solo est-ce que doy na. ñun kay 8 mars bi dafa waroon nekk 1er euh, <laughs> janvier ba 31 décembre parce que ci yoon rek bu dee bu dee affaire bi defuñu ko ndax folklore am ñu bëri dañuy sañse sol seeni yére dem toog fenn waxta après tàccu après fecc non du loolu pour jàpp naa du loolu ni ñu war a fêtee journée bi dañ ci war a toog fu nekk foo xam ne nit ñaa ngi fay toog di fêtee journée bi nañ fa toog def fa ay débat yu am solo débat yooyu dafa ay panel yu am solo te loolu nañ ko teg ci ay sujet yoo xam ne ay sujet d'actualité la maanaam loo xam ne ñun daf ñuy jëriñ daf ñuy gindi daf ñuy yeete daf ñuy tax ñu mën a dem ñu mën a avancé mais buñ ko naree def journée boo xam ne da ngeen di toog fee regroupé wu ñii di tàccu ñii di lekk ñii di naan baason ñii di def li loolu amul njëriñ pour man jàpp naa loolu amul njëriñ euh, objectif bi lan la mooy seet jigéen ñi naka lañ nekkee naka la ñu toogee. place yi ñu am yan jafe-jafe ya lañ fa am ñun yan défi la ñu war a mën a relever maanaam yan problème ya ñu war a régler pour ñun fi nga nekk ne xam ne nii fa la ñu yëngatu ku ci ne fa nga nekk branche ba nga nekk fa nga yëngatu nga war ci mën a gis sa bopp say droit say àq say yelleef ñu jox la ko ba mat jawit sa warugar mooy sa devoir la nga war a def nga def ko ba mat parce que mënoo laaj ay droit te yow lañ la laaj pour nga def ko defoo ko matale woo ko donc il faut aussi jigéen ñi ñu toog def ay conférence toog waxtaan seen biir ba nga xam ne ni ñoom dinañ saafonte ñu xool lan moo xew tey ci problème de société yi lan la lan moo fi ne lan lañ jànkoonteel ci seen liggéeyukaay lan mooy seen problème ak leneen ak leneen ci seen i kër ci seen néegu sëy il faut ngeen wax jigéen ñu dégg ndigal aussi tey ngeen ko si faral di waaw jigéen nag dafay dafa am kilifa ñun nit ñu bindee suñu société jigéen da ngay am kilifa boo nekkee waaw ba pare di dégg waaw buñ la bàyyil nga bàyyi waaw mais mais buñ la xëy mi bàyyi xëy mi buñ la toog déedéet ah, déedéet du côté boobu non ndigal moom ndigal la rek waaw ndigal xam naa ndigal la mais dama ne la dama ne la boo nekkee nit ngeen di sëy ci benn kër ngeen nekk da ngeen di xool liy jariñ kër ga ngeen def ko. mais war ngaa dégg ndigal c'est pas ku góor ki. mais war ngaa dégg ndigal. waaw di nga dégg ndigal mais boo déggee ndigal bi day fekk ni ndigal ba ca lay jëriñ kër ga ca lay bokk mais ndigal boo xam ne dama laa bu liggéey toogal te amoo lu ma la jox loolu ma man du ma ko nangul benn góor. waa amoo lu ma la mais bu dee am na lu ma la jox nag. bu la amee lu ma la jox matale lépp bu la neen toogal te yow jàpp jàpp nga ne war nga war na laa mën a jaral nga sacrifié wu toog bañ a def dara. lépp man na sa kër nga toog. waaw mais soxna si loolu du problème. Euh, tey am na loo xamante ni tamit yéen bu ngeen ko bëggee promouvoir ci jigéen ñi mën naa doy waar il faut que xale yu jigéen yow sànq euh, xam nga yéen euh, respecté jigéen tamit bokk na ci nga fexe ba mu sëy am njaboot gu barkeel. Mm-hmm. te sëy am njaboot gu barkeel képp ku koy conseiller jigéen mooy respect bi ëpp ndax njaboot gu barkeel lu ne lu ne lu ne xaj na si. ak ak ak dégg ak dégg ndigal. Mhm. loolu est-ce que nekkul loo xamante ne tey yéen war ngeen di ko gën di wax. pour jigéen ñi nga xamante ni ñooy sëy wala xalaat ëllëg sëy loolu moom dinañ ci wax parce que bëgguñu aussi jigéen ñi tam bañ a sëy rek nekk ci liggéey bi rek loolu tamit doxul parce que yàlla moo ñu moo ñu moo ñu jox place boobu ñu war ko occuper ndax ñun ñun ñoo war a ci e, kër yi. yore gone yi yor njaboot wala yar xale yi. wala yar xale yi. Uh-huh. te bu ngeen te uh, kër gi yar xale yi bu du ñu yaru. du ñu yaru. te seetlu nañ ne léegi maam amatul ci kër ga. bàjjan amatul. Mm-hmm. tante amatul donc amul ñu mën a surveiller xale di leen toppatoo moo tax yu bëri problème yu bëri ngay dégg ci mm-hmm. xale yi. Mm-hmm. di am parce que manque de surveillance. te yen yéen a ko waral ak fuite ko waral. waaw ndax yéen toogatul ci kër yi. waaw loolu moom dina am na côté boo xam ne d'accord naa si ak yow muy côté boobu Euh, jigéen bu fekkee ne yow defoo dara liggéeyoo xëyuloo gontuloo yaa ngi toog sa kër xëy na sa borom kër mu ne la nga toog moom mooy dem wuti ñëw indi di la jox bu dee mi ngi wuti ñëw indi di la jox di la jox sa njaboot parce que am na tamit ñoo xam ne nii danañ la toogloo ci kër ga def loo wuñ la dara te duñ la jox dara lu ñu am ña ko ña ña ngay xool beneen jigéen buñ ko war a mën a jox cas exception la. waa déedéet lu am la. waa am na mais cas la fi bëri na fi sax mhm. bëri na fi jigéen ñi. daf ci am ñoo xam ne seen sëy moo xaw a doy waar parce que ku góor ki daf la naan toogal ci kër gi bul dem liggéey bul def dara toppatool ma njaboot gi am na ci ñoo xam ne nag yàlla dafa def dañoo xam seen cër xam la leen war lépp lu war ca kër ga ñoom ñoo koy def. jigéen ñi góor ñi. góor ñi ne la toogal bu ñu toogal bul dem fenn seetal ma samay doom yaral ma leen la war ca kër ga yëpp dañ koy def ñu ngi koy def ñooñu amuñu problème mais am na ci ñoo xam ne ni dañuy ñëw. tere la nga liggéey parce que dañoo fiir wala dañoo am yeneen xalaat ci yow yu ñaaw wala ah, ah, seen xel mel noonu wala ñoom ñu nekk ñoo xam ne nii mooy loolu ñu toog loola ca ca ca sëy ba duñ la toppatoo duñ la lijjanti duñ la gérer duñ la jox lu mat doo mën a yar sa njaboot na nga ko mën a yare seeni matuwaay lu leen doy daa xaw a jafe nag dafa xar a jafe non matale seeni bëgg-bëgg dafa jafe soxna si waaw mais jafe na jafewul parce que loo gis nee naa la ci ci diggante góor ak jigéen ca wax waxtaan la rek waxtaanu biir néeg la ba ngeen juboo ci ay kàddu ndax man boo mënee toogal te la ma war a wuti pour def ko ci man ak sama njaboot nga jox ma ko gisuma li tax may génn di dem feneen. d'accord mais bu fekkee ne li ci ëpp nag li ñu gis nag ci jamono ji jamono léegi dafa xaw a naqari. Mm-hmm. dara matul dara matul. Mm-hmm. donc boo amee sa soxna mu bëgg di la jàppale ci yenn yi. war nga ko mën a bàyyi ndax day xëy liggéey wàcc ñëw toppatoo njabootam te jigéen ñi nga gis ni ñuy xëy di liggéey bu ñëwee dañuy lijjanti seen kër dañuy toppatoo seen kër xëy na seeni doom dañuy jàngi bu ñu jàngi jee ba wàcc ñoom xëy na balaa 5 heures ñi ngi ci kër gi wala ñoom sax ñooy wàcc dem yóbbu seen oto dem jëli seen njaboot daal di ñëw ànd ak ñoom ci kër gi topp too seen jëkkër parce que xam nañ jëkkër ja du fa yendu dafay dem liggéey bu wàccee nga mën ko mën a toppatoo pour man loolu posé wul problème mais soxna si li nga wax loo am ci njaboot gi nga koy def mais li nga wax noonu am na solo mais xam nga tamit tey par exemple tey fexe ba sa doom nekk nit ku baax fexe ba sa doom du nekk agresseur fexe ba su doom du nekk bandi amul dara loo xamante ne lu ko ëpp solo la te tey amaana ñoo xamante ni tey ndax dañu wax ne jigéen mooy école bu njëkk ci ci doomam tey am na ñoo xamante ne bu ñu amul jotu yar seen doom yi ci biir kër gi ndax yar bi yaay mën a yar amul jànq bu ko mën a yar amul keneen ku ko mën a yar léegi bu ngeen yarul njaboot gi tamit ba njaboot gi mel ne neen ëllëg est que ni mi du nekk yaraanga ci yéen. déedéet du ko nekk xamul lu tax parce que lii dal ci njaboot gi coobare sunu borom lay doon nit war naa mën a toog këram. lijjanti këram di surveiller doom lu ne mën ko def teewul mu dem école leneen fekk fa. mais ma ngi sabablu ndogal yàlla ñëw mais mi ngi sabablu. d'accord naa si ak yow ndax jamono dafa neexul nit ki foo toll war ngaa mën a sabablu man maa ngi xëy di liggéey sama njaboot maa ngi leen bàyyi kër ga waaye teewul fu ma toog am benn temps benn 10 minutes ma jël sama téléphone woote. ndax seet njaboot ndax ñëpp a ngi si jàmm ndax xëy na li tax may jóg di wuti da fekk ne loolu matlewul mooy li ma lay wax te jamono léegi dafa changé nekkul comme bu njëkk nekkul comme bu njëkk nga xam ne bëgg-bëgg yi bariwul soxla yi bariwul boo amee sa as tuut war ngaa mën a dund te da ngay dund da ngay nekk ak njaboot gu yaatu macha allah léegi loolu amatul ku ne sa rëq ngay nekk yow ak say doom ak sa njaboot. donc loolu changement boobu nga xam ne moom moo am léegi ci société moom mooy waral nit ki toujours nay jël ay matuwaayam ci teel te dafa war a xëy parce que jàpp na ni xëy na bu xëyul du baax donc war na mën a pour man war nga mën a boole ñaari fekk du am benn problème li ci li ci kii rek mooy lépp lu ñaari way dencente yi war a def nañ ko toog waxtaanee ko diisoo ko communication rek lay doon. d'accord ndax fépp fa waxtaan amul. dara du fa am dara du mën a. léegi 8 mars bi Macky Sall dàq nan nga ko waaw loolu nag dafa am loo xam ne nii moo ko waral muy muy kaabu bu exceptionnel mooy feebar bi nga xam ne nii moo wër àdduna gis nañ ko am na ñu ci faatu am na ñoo xam ne peut-être yàlla may na leen ñu fa ñu fa ñu fa ñu nekkoon naan nañ fa seeni garab ndax nee nañ affaire bi amul amul vaccin donc euh, ñooñu dañ leen di traité xëy na symptômes yi ñu traité ko buñ ko traité nga xaw a daal di te ñu daal lay bàyyi nga dem si kër coronavirus bi. coronavirus bi parce que mbooloom yu bari ndaje yu bari xëy na mu nit ñi mën nañ nekkee nekkin nekkin boo xam ne nii comme ni ñuy waxee coronavirus bi nu nu muy gaawee ci ci ci ci. ci wàllante bi. donc loolu ñu jël suñuy matuwaay prévention la mooy maanaam nga jël say matuwaay ba loolu du la ca fekk ñuy éviter di am yenn ndaje yu rëy yi nga xam ne yow da ngay toog man maa ngi nii toog sa wet te feebar bi dañ ne soo sëqatee rek. wala nga tisooli rek. fekk nit ki mu ngi nekk à mois de deux li ngay génnee kii yu ndaw yooyu di génn muy gouttelette yooyu bu la dalee da ngay daal di jël. feebar loolu tax mu donc pour pour aar ñi ci loolu war a mën a xew cas di gën a yokk di gën a bari moo tax ñu ne dañuy jël suñuy matuwaay lépp luy rassemblement ñu war ko mën a yemale. d'accord mais waaw mais mais soxna Maguette li ñu gis ci Macky Sall tamit mooy moom dafay aar boppam exposé askan wi ndax gis nañ ne ndaje yi Macky Sall yi dem yëpp ndaje yooyu la dàqalu moo xam conseil des ministre bi la euh, décentralisé bi la moo xam 8 euh, mars bi la mais lan moo tax Macky Sall bu bu waxee ne nañu annulé 8 mars lan moo tax waxul championnat yi am Sénégal ci stade yi. ndax 8 mars bi tey stade lañ koy def lañ ko doon defee te gënul xumb stade yoo fi dem fi ne nii si Sénégal dafay fees dell ak nit lan moo tax Macky Sall waxutoon ne nañu dakkal li nga xamante ni mooy mooy ligue sénégalaise bi. ligue sénégalaise bi xam nga Macky Sall ku ci ne daf la am loolu lu mu la jox pàcc boobu la jox nga war ko doxal moom mënul xëy xëy rek mën na ko sax gaa am na sañ si ñu xëy rek annulé lépp. waaye tamit dafa dañu dañu jàpp ne buñ ko defee xëy réew bi na war a doxee du ko doxee te tant bien que mal ñu ngi maîtriser situation bi ndax gis nañ fi ba affaire bi duggee ci réew mi ba tey kaa yi ñu gis yëpp du kaaw ñoo xam ne ay sénégalais lañu waaw. du kaaw ñoo xam ne ay sénégalais donc mën nañ jàpp ne tey biir Sénégal euh, amagul lu war a mën a tax. ñu ne lépp na arrêté ndax moom ligue sénégalaise. Ah, bu ko ah, xaaral rek. Ah. ligue sénégalaise bu ko arrêté. école bi bu boobaa day arrêté université ba arrêté. transport yaa ngi dégg maître Moussa Diop fan yi passé mu ngi naan affaire bi bu lawee dafay dafay gaare kaare te ñun Sénégal lañ nekk ñun dañoo nekk dëkk boo xam ne ñu développé wuñu donc war nañ mën a bàyyi dëkk bi nag di dox mais loolu moo tax ma ne la 8 mars bi annulé 8 mars bi waaw mais annulé bi xam nga lu xam nga lu tax ñu def ko ndaje yu bëri yi am ndaje jigéen ñi bëri yi am te ñu xam ne am na fa ay risques parce que affaire bi doo annulé rek pour annulé mais dafa am ay risques. comme yan risques. mooy risques yi ma la wax. mais risques yooyu mënul am. ci championnat bi parce que am na mën na ma mën na am mais ñi nga xam ne ñoo yor championnat bi xëy na gisaguñ ne war war nañ mën a toog pour loolu ñu war ko mën a euh, annulé bokkuñu affaire kii yi bokkuñu. waaw mais man dama jàppoon ne rassemblement rassemblement la rassemblement rassemblement la mais Macky Sall bu ne lépp na arrêté loolu doxalu réew mi loolu la xam moo tax mu bàyyi. loolu la xam moo tax mu bàyyi. mais bu ñu demee ba toll foo xam ne nii affaire yi garaaw na situation bi garaaw na benn paire garaaw boo xam ne nii jar na lépp taxaw su boobaa nag lépp na tagatémbe ñu toog ba keroog affaire yi di xaw a wàññeeku. mais ba tey ci liñ fi ñu toll nii ñeenti cas rek man ministère de la santé laa nekk ñeenti cas rek moo fi am te yooyu ñu ngi koy gérer. ci hôpital de Fann donc man gisuma lu war a mën a tax ñuy tiital nit ñi naan na lépp na taxaw. donc nañu bàyyi parce que fan yi dégg ngeen ministère de l' éducation na moom jëlagul décision pour école yi ñu tëj ko. Ah, te wax na dëgg parce que tamit moo tax ñu ne Macky Sall Macky Sall dafay exposé askan bi moom fépp fu muy dem. dafa ko exposé wul benn askan parce que nee na jàpp na ni 8 mars bi xëy na dafay dajale mbooloo mu bari mu ne nañ ko def te benn jour la loolu benn fan la fete la benn fan bu ñuy fete. te ñii championnat day am dafay dem dafay dem ci période bu yaatu la. championnat saison la ba saison kii école bi. Euh, euh, année scolaire la maanaam maanaam euh, octobre la ba juin wala juillet donc bokkul ak li nga xam ne ni benn bés kese la ñu war ko mën a toog pour war a feetu. waaw mbir bokkuñu. waaw mais fagaru nag moo gën moo gën faju jàpp mm, ah, absolument d'accord léegi d'accord dina ñëwaat ci euh, ci ministère de la santé ndax yow ci ministère de la santé fa nga nekk euh, ñuy nga yor fa lu jëm ci wàllum xale yi ak euh, métital yi ñu leen di métital ak lu jëm ci siif gi ñu leen di siif ak yu demee noonu mais soxna si yéen yéen soxna yi ndax da ngeen di faral di di kaas di wane seen naqar seen i revendication yéen ñi surtout yéen ñi nga xam ne dañu yor ay ay kuréelu euh, réseau Siggil Jigéen ak euh, réseau fem fas au développement du Sénégal ak xeet yu demee noonu mais yéen. Mm-hmm. soxna si chaque jour ngeen gis fi jigéen ñu jox ko carnet d'adresse ñu jox ko carnet de santé. Mm-hmm. na ko am nga sañ-sañ taxaw ci mbedd mi. Mm-hmm. jaay sa bopp. ñu nga gis fi ay ay médicament wala ay comprimé ñu ne jigéen am nga sañ-sañ jël ko. te bañ a ëmb. loolu lépp est-ce que du manque respect jigéen ndax yéen a ngi koy xeex. waaw. Euh, ci wàllu woowu na damay wax ne euh, danga boole ñaari mbir yu bokkul lépp li nga xam ne nii mooy violence faite aux femmes dañu jàpp na jigéen moom ki nga xam ne nii moo gën a vulnérable maanaam xamu nuñ koy tekkee ci wolof moom moo moom lañ war a gën a euh, euh, protéger maanaam jël ci moom ay matuwaay. parce que jàpp nañ ni jigéen peut-être amul force amul doole bi nga xam ne góor am na ko. te dañu yàgg setlu ne violence yi ñuy def yépp ci jigéen ñi lañ ko jëmale. mu mu doon ci wàllum sëy mu doon ci wàllum liggéeyukaay mu doon ci yeneen wàll donc loolu war nañ mën a xeex ba loolu xam ne jógee na fi waaye du tee nag waxuñu ne euh, dañuy kii dañuy defal promotion jigéen ñi rek bàyyi góor yi déedéet parce que am na góor yi tamit yoo xam ne nii xëy na fañ nekk wala fa ñu liggéey wala seen kër ñu ngi leen di mettital foofu mais xëy na mettital boobu ci jigéen ñi la gën a feeñee ci góor ñi mais du tee ñaari pàcc yëpp la jël en charge ñun ministère de la santé en tout cas ñun neew na dañuy bedd kenn ñu war a mën a xeexee pour jigéen am lu mu war a am cër ba mu war a am noonu la ñuy xeexee pour góor tamit ci bu tollee ci situation bu mel noonu ñu défendre ko loolu tamit mooy li am. waaw d'accord mais mais léegi nag yow li ngay wax noonu. Mhm. loolu pour man jàpp naa ne loolu ci domaine privé nit ki la maanaam nit ku ne yow yaay seet ci sa bopp. naka ngay dunde mais yéen ñi revendiquer fekkee na ñooñu mais yéen ñi revendiquer jigéen ñi. jigéen ñi lu ñu leen di revendiquer ñi nga xam ne dañ leen di matital ñooñu la ñuy revendiquer. waaw léegi dama ne. mais ku nekk ci mbedd mi di jaay sa bopp loolu yow la concerné. mais soxna si. waaw yéen yéen tey par exemple tey ki nga xamante ni dafa am dafa am soxnaam. bu ngeen déggee ñu ne kenn benn góor dóor na soxnaam sax. xamu leen lan lañ jotee. ci biir sëy bi. yéen kuréel yi ëmb jigéen yéen ñëpp ngeen jóg yuuxu amee télé yi ak rajo yi mm. te bis bu yàlla sàkk ngeen romb jigéen ñi mm. ñu jox leen ay ay carnet ay karne de santé ne la am ngeen sañ-sañ jaay seen mais loolu tamit vie privée la mais war ngeen koo kaas déedéet duñ ko kaas xam nga lu tax parce que jigéen ñooñu yore seen carnet de santé amul violence buñ leen defal loolu du violence. violence kay gënul kenn defu leen déedéet amuñu violence xam lu tax parce que ñoom ñoo décidé ñoom lii mooy seen métier mooy jaay seen bopp bien que xam nañu loolu. leen si yàpp déedéet. ndax dafa ñaaw dafa ñaaw si jigéen. prostitution muy ah. maanaam jaay sa bopp. dafa ñaaw loolu ba jamono de ba adduna de àdduna ba tey. Hmm. loolu daf fay am. mais te teewul nit mën naa toog këram. teewul mu ñaaw waaw non ñaaw na peut-être si déggin. wala wala ci gisin hmm. mais nit ki moo tànn def loolu xam nga ku tànn def loolu doo ñëw ne ko par force da nga ci génn. ngeen sensibiliser leen. waaw d' accord daa ñu toog sensibiliser waxtaan nit ki parce que xëy na li tax mu nekk ci. am na ay raison yi tax mu def ko su boobaa yow di nga toog waxtaan ak moom ne ko yow. lii nga nekkee nii est ce que yow. yaa ko tey te yow ko lan moo la ci dugal est ce que da am problème économique moo tax nga di ko def wala leneen leneen. wala dañ leen am na ñoo xam ne sax dañ leen di forcer pour ñu def ko. mais loolu doyoon na combat du seen tey loolu bokk na ci combat yi ñuy mën parce que neewuñ ne combat yi la ñuy def combat yee duñ ko def. combat yëpp yoo xam ne daal jigéen dinañ ci am ay problème ay jafe-jafe borom bu d'accord mën nañ ci toog waxtaan ak moom ba saafara ko ñooñu aussi fi ñu ci la ñu nekk am na ci ñoo xam ne ca la ñu ne dafa leen doy sëkk soxlawoon ku leen dimbale ñooñu dañ leen di bàyyi ñu nekk ci la ñu ne ñi nga xam ne nag dañ leen ca dugal xëy na forcé leen ca ñooñu xëy na bu ñu toogee ñoom waxtaan ak ñoom. xam nga soxna si jàpp ne war nañ mën a jàppale leen bu ñu génn ca la ñu ne danañ ko def. léegi xam nga tey par exemple dama la jox benn misaal xam nga tey tuxum yàmba état dafay tere ku tuxum yàmba ndax état xam nga lan moo tax te pourtant man su ma ko jëndoon sama xaalis sama xaalis la su ma demoon sama néeg di ko def sama vie privée la te pourtant nguur daf ma koy tere ndax baaxul ci man te dafa yàq aw askan léegi état lan moo tax mënul tere tamit jigéen di jaay boppam. waaw loolu mbirum état la ñuy jël décision yi. pour sa ci loolu pour teg ay loi sa xalaat. man sama xalaat ci loolu mooy suñ ko mënoon a tere moo gën parce que lu tax. Mhm. pour pour parce que li ma nekk ministère de la santé xam naa ni loolu bañ ko defee. Mhm. am ci ñoo xam ne ñu ngi koy def du ñu protéger wu. Mhm. te boobaa infection mën na leen ci fekk. Mhm. VIH ba Sida. donc xam nga loolu déjà baaxul si ñoom. man su ma ko doon wax day wax ne loolu nañ ko tere ndax mën naa indi conséquence bi muy Sida bi. mais nit ki aussi euh, yow affaire yamba bi ngay wax yamba bi loi moo ne ku koy jaay ak ku koy toq yépp dañ koo tere. donc loolu nekkatul vie privée nekk parce que nit ki boo bëggee ñu sàmm sa vie privée la yoon di tere danga koy bàyyi la ñuy digle nga def ko mm-hmm. mais prostitution bi bokkul. waaw mais xam nga soxna si. xam nga non non da ngay boole lu bokk ñaar yooyu bokkuñu. non dama jox exemple dama la jox exemple. waaw dama jox exemple sa exemple bi baaxul. waa d'accord naa sama <laughs> exemple bi baaxul mais xam nga tamit yéen. tey mënu leen ne lépp lu ñu ko non yow yaa ñu ngi fekk nit këram ñu di ko métital mais pourtant ku jigéen gi bu ne defuñu fa defuñu ma dara kenn métitalu ma ñun amuñu droit fekk këram naa ko dan lay dan lay kii par force dan lay défendre par force déedéet nit ku ñuy défendre day fekk ne yow nga ñëwal ci sa bopp fekk si ñu maanaam am na euh, li ñuy wax réseau kii AGS ak réseau Siggil Jigéen ak yeneen ONG yi liggéey ci wàllum droit des femmes ak yooyu am nañu ay boutique de droit ci boutique de droit yooyu dañ ne képp koo xam ne yaa ngi dund violence ci sa biir kër maanaam ñu di la dóor ak dóoruñu la waaye di la métital yi parce que métital bi du ci dóor kese nit mën nga nekk moom ci kër gi sax di ko di ko di def ci moom violence maanaam nga di ko xas di ko saaga di di ko defal ay affaires yu métti. di ko teree lekk di ko teree naan loolu rek violence la. jox jigéen loolu loolu jigéen bi carnet médical na ko jaayal sa bopp moo gën a ñaaw moo gën a nekk violence. déedéet non xam nga tax yow am na góor ñoo xam ne bu ñu rombee jigéen ñuy jaay seen bopp dañu am lu leen naqari. waaw ndax xam ne jigéen moo leen. waa léegi lu leen téye góor lu leen tee góor ñoo ñoom ci seen i coobare bopp ñu dem fekk nga xam ne ni ma ngay def loo xam ne neexu leen ñu woo ko jigéen ko ba ma ñëw wala faxe ba gisanteeg moom fen toog ak moom waxtaan ak moom ne ko yow lan moo waral ngay def li mu wax la ne la man lii ak lii ak lii nga ne ko ah déglu rek déglu rek mu nga ne ko ah man de vraiment bu ma sañoon li ngay def nii da nga koy bàyyi nangam ak nangam nga xool noo koy mën a jàppale mu génn ci nga jàppale ko pourtant am na ay ustaas yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi Oustaz Iran Ndao xaw ban oustaz am na benn bés mais maa ngi koy dégg muy wax ne am na jigéen boo xam ne da doon jaay boppam mais ci kaw ay waxtaan ak ay ak ak ak yeneen ak yeneen nu muy argumenté ak nu muy waxtaan yi nu muy nu muy kiwee nu mu koy gindee ba génnee ko ci loolu mu nekk am na ñoo xam ne ñu ci bëri génnee nañ leen ci loolu. combat boobu mënuleen woon ko porter. combat yëpp la ñuy porté amul combat buñ dul porté mais dama ne la nit ki ah, boo koy dimbale day fekk ne moom bëgg na ku ko dimbale bu dee bëgg ko euh, moom jarul ñu koy dimbale jërëjëf soxna Maguette ja euh, léegi yow yaa nekk secretaire général réseau femmes face au développement du Sénégal développement Sénégal ak seen kuréel bii nii ban taxawaay ak soxna Maguette lan ngeen defagoon loo xamante ni jàpp nga ne dafay bokk ci développement réew mi waaw li li tax ñu tuddee ko loolu dañu ne jigéen ñi war nañu mën a jàppale organiser leen de regrouper leen defal leen ay groupement yoo xam ne. ñoom seen bopp dinañ yor ay métier ay liggéey yoo xam ne dinañ ci mën a gis seen bopp fekk du ñu dem di woyaani wala fekk du ñu dem di ñaani wala du fekk du ñu jël seen dépense su jëkkër di ko lekk. looloo tax ñu ne nañu organiser jigéen ñi di leen former defal leen ay formation ci kaw loolu réseau Femme Face Développement def na ay formation jigéen ci affaire céréales locales ci jus locaux bañ nañ ko ba yenn foire dañ fay dem di exposer. di defar ay cere di defar ay euh, caakiri mhm. di defar ay euh, euh, produit daal di ko di ko da defar comme ni jigéen ñi di def dem syndicat jënd fa seen buy seen bisaab ñëw defar ko ay jus yu neex di ko yóbbu seen kër wala di ko jaay nit ñi parce que seen lekken bi dafa xaw a doy waar ñun Sénégal lépp lu lu jóge bitim réew la ñuy jël bàyyi fi li nga xam ne ni moom moom moo nekk fii ci ñun jege ñu ba dee. gën fee yomb te duñ ko defal. te te ñun loolu uh, andil ñu ay conséquences ci suñu wàllum santé yoo xam ne kenn kenn xamul. daye bu mu sa leader bee ñu ko tàmmal sa leader Macky Sall sa leader Macky Sall. non Macky Sall dara Macky Sall na marché ba da doxee noonu lay doxee. Eh, Sénégal te te au contraire sax Macky dafa gën a defar mbir mi ndax ceeb bañ daan euh, jëlee fële bitim réew di ci importer ay toni toni toni tonnes léegi fexe na ba zone nord bi yëpp nit ñu ngi bay ceeb ba fuuta nit ñaa ngi bay ceeb di ko jël di ko defar ba mu baax ñu jox leen ay machine jox leen ay tracteur ñuy defar ceeb bi wal ko ba mu baax ba mu rafet dini tànn yi ba mu set jël ko def ko ay saako di ko jaay léegi dëkk bi ku ci soxla ceebu mbay mën nga koo am. d'accord mais te ceeb boobu moo gën a baax. gën a neex mais seen réseau bi est-ce que bu mag la. réseau bu mag a mag la national la ak international am na ay jigéen yu nekk diaspora yi si bokk. Mhm. Sénégal gi yëpp am na dëkk yu nekk mais am na dëkk yoo xam ne nekkaguñ fa. te ñu ngi jëm si loolu. pour dem organiser wu lu ngeen nañ fi ay consultation gratuite ay médecins nekk fi jàppale ñu. Mm-hmm. parce que médecins yi dañu nekk si regroupé wu benn association. Mm-hmm. lépp fépp fu consultation am ñoo fay dem dañuy def ophtalmo def dépistage cancer du cole de l'utérus. Mm-hmm. Euh, def consultation générale muy xale yi ak mag ñi ak ak ak ak ak ak leneen ak leneen. lu jëm ci consultation def nañ ko fu ne Thiès rek lañ mujjee jóge def fa consultation bu mag bu ñu paree ci loolu def financement des femmes jàppale femmes yi financer ay groupement financement yi dafa am ay jigéen ñoo xam ne dañu nouer ay partenariat ak ay banque euh, am ci ñeneen ñoo xam ne ay mutuelle yu ndaw lañu yor mhm. microfinance ci biir mutuelle yooyu euh, dañuy def convention signé ko def partenariat ba nga xam ne nii mutuelle yooyu dañuy ñëw appuyer ñu yaatal ñoom seeni membre mhm. ndax képp ku dugg mhm. am financement da ngay bokk ci mutuelle ba ñu jox la carte carte boobu am na sax carte yoo xam ne nii mutuelle de santé sax bu la neexee mën nga cee adhéré. Mm-hmm. donc euh, ñu jox la xaalis lebal la ko ngay fay par ndànk-ndànk te taux d'intérêt bala banque yaan teg. bu metti lool mm-hmm. du ci am. duñ la poursuivre naa la dañuy nangu sa kër ak dañuy nangu sa oto ak dañuy def li def laa. Ah, kon dañ la koy dañ la koy jox ci ay somme yu yamamaay. développement réew mi ci liggéey ndànk-ndànk waaw ñu ngi ci développement boobu. d'accord mais soxna si euh, Maguette da nga nekk euh, benn laaj rek da nga nekk euh, ministère de la santé lu jëm ci jàngoro yi coronavirus ji ban conseil moom ngay jox askan bi ak yéen sax maa ngi dégg waa waa SAMES mooy syndicat bi ëmb. médecins yu Sénégal nee nañ mm-hmm. yéen mbirum amateurisme. la ci la ci nguur gi doxe rawatina mm-hmm. ministère de la santé santé lan ngay ci loolu. ah waaw léegi ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk syndicat SAMES xam nga moom bokkuma seen syndicat du ma médecin mais ñoom ñi nga xam ne nekk nañ ci syndicat bi xëy na gis nañ ne matuwaay yi ñu teg doyul. moo tax ñu ne ministre bi na ko renforcer defaraat ko parce que man secretaire général bi nekk SAMES muy docteur Yeri Camara xam naa ko baax Sédhiou la nekk mooy mooy médecin chef Sédhiou. Mm-hmm. dégg naa ko dem bu muy wax. te li mu wax jàpp naa ni aussi am na am na ci loo xam ne nii Euh, war nañ ko mën a gën a defaraat. comme lan gën a yembal mooy maanaam dispositif bi nga xam ne nii nekk na aéroport. parce que xam nga personnel de santé dana leen jëlee ci hôpitaux yeeg ci kii yóbbu leen foofu te bu ñu leen fa yóbboo tamit ñoom tamit dañuy courir ay risques te biir nu ñuy courir ay risques il faut logistique bi ak matériel ba ñu war a am pour mën a sàmm seen bopp ba du ñu am doomu jàngoro jàngoro bi hmm. matuwaay yooyu il faut ñu jël ko amoon na sax may xëy na dafa doyul il ñu dolli ko te Euh, man ci côté boobu sax damay gën a renforcer ci lan euh, prévention bi ñu ngi koy def mooy maanaam ñu ngi ñaax nit ñi di def ay sensibilisation euh, ñi nga xam ne ñoo yore service communication ak ak éducation pour la santé buy SNEIPS ñi ngi dem ci gox-goxaat yi di waxtaan ak njaboot yi dugg si école yi aussi di waxtaan ak élèves yi di waxtaan ak ñëpp bàjjenu gox yeeg relais yi ñoom ñëpp. jël nañ leen nit ñi bokk ci activité de sensibilisation fi mu ne district yëpp ku ci ne am nga sa plan booy développé pour mën a seet nooy nooy nooy nooy nooy nooy duggee ci askan wi pour waxtaan ak ñoom yore seen i fiche de sensibilisation di leen ko won mhm. donc loolu ci kaw loolu ma jàpp ne man comme ba tey ñi nga xam ne nii ñoom lañ gis ne ñoo yore doomu jaam ngoro bi fële lañ jóge extérieur lañ jóge ci dëkk-dëkkaat yi jël avion ñëw wàcc fii Sénégal bu desoon lu dul ñun rek biir Sénégal xëy jàngoro bi daf ko mais comme ay nit ñoo ko jëlee fële andi ko nañuy def ba jaar ci aéroport ba wàcc foofu nañ ko renforcer. nit ñi nga xam ne nii ñoo fay wàcc. Mhm. xam nga caméra technique euh, euh, thermique bi lay tegal noonu sa bopp pour xool sa yaram xam nga euh, feebar bi mën na nekk ci sa yaram ba fukki fan ak ñeent. muy door a génn signe yi di door a génn saa dépend ci nit ki tolluwaayam ak yaramam nu ma mën a résister ci ci virus bi. am na ñoo xam ne bu ñu toogee ñetti fan ñeent signe yi commencé génn am na ñoo xam ne dinañ toog ba fukki fan ak lu teg signe yi commencé génn bu dee nit dafa jógee aéroport mën naa yor jàngoro ji te doo ko xam ndax du boppam du metti euh, du sentir ne sonn na euh, du am li ñuy wax mot de gorge mooy maanaam sa put gi di metti fièvre bi nga xam ne moom la ñu wax ne 39 degré wala plus de 39 degré amul loolu fièvre kii température normale la am fekk mu ngeeg doomu jàngoro ji te doo ko xam test boobu nañ ko gën a renforcer ba nga xam ne képp ku jógee bitim réew wàcc ci avion bi nañu fexe bu ñu la mënee isolé mhm. téye la pendant 14 jours yooyu ñu wax 14 jours yi bu matee nag gisuñu ci yow dara ñu bàyyi la nga dem. d'accord jërëjëf euh, soxna Maguette léegi yow responsable politique nga fa li nga xamante ni mooy Pikine Nord. Euh, Pikine Nord foofu nga xamante ni seen maire bi di Amadou jara nekk ci euh, opposition bi gis nañ ne ba léegi ni daal est-ce que am ngeen kàttanu euh, maanaam diirante ak ma mbagg. bu baax bu baax te gëm nañ ne bu ñu àndee bu ñu jubbooyee bu ñu nekkee benn bu ñu booloo sunu doole buñ ko fa bëggee jëlee dinañ ko fa jëlee. est-ce que nga élection locale. incha allah. ci mairie bi. waaw bu soobee yàlla. ban taxawaay nga am foofu ci mairie commune Pikine Nord. waaw responsable laa fa APR yàgg naa yëngu nag si parti bi xam nañ ma foofu bu baax maa ngi def samay activité yenn saa yi su ma amee lu may jàppale waa Pikine Nord ma jàppale leen ko jigéen ñi ci ay financement euh, euh, ak euh, consultation def nañ ko fa couverture maladie universelle jël jël xale yi nekk ci école yi jox leen ay carte CM def naa ko fa ak yeneen ak yeneen. te loolu yëpp def naa ko euh, peut-être man ci samay moyen wu bopp laa ko defee mais yàlla jàppale na ma aussi te jaral na ma ko ndax sama parti lépp loo xam ne nii war naa ko mën a def loo xam ne da koy yëkkati da koy jëmale kanam ci laay dox ci laay nekk. mais mais sànq yaa ngi ah, mbiru commune yi. jàppale naa sunu ASC yi. Uh-huh. saay bu ñu amee football am matt xale yi dinaa leen si jàpp ca la ma mën nag ca sama doole fa mu toll ma yëkkati jàppale leen te yàlla tax. te suba tamit ma nekk responsable affaire ma bañ koo nekk doomu Pikine Nord la fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yoroo fa la sama lépp nekk sama famille fa lañ nekk donc su ma leen jàppalee dama leen war a jàppale c'est pas que damay politique moo tax ma leen di jàppale mais xamante naa ñoom seq naa ñoom yenn relation yi ba su ma amee as tuut war naa ko mën a teg ci table ji bokk ak ñoom. mais mais euh, sànq yaa ngi doon wax que ne lu jëm ci mbiru euh, mairie yeeg yooyu gis ngeen ne jigéen ñi bariwuñ ci mhm. département Pikine boobu sax benn maire moo fa nekk. est-ce que tamit nit ñi ñoo parewul pour dénk mairie ay jigéen. ah nit ñi pare nañ de. man de li ma gis Mbacke Nord moom jàpp naa ne ñëpp pare nañ soobe yàlla. mais boo demoon fii nag département yu bari benn da ngay am. département waaw waaw xëy na euh, moo tax nag mu jot ñu ñaax ñu nit suñuy moroomu jigéen ñi politique ñu am tuuti fulla maanaam am nañ fulla sax mais ñu yokk seen seen taxawaay gëm seen bopp nag te war a mën a jàpp ne lépp lu góor mën jigéen war na koo mën a mën affaire yi du dara lu dul yàlla may la aussi aussi parfois tamit xëy na. Euh, compétence bi maanaam capacité bi ñu war a am pour mën a doxal mairie tamit peut jigéen ñi ñu ci bari am ñu ko xëy na loolu tamit mën a nekk frein ci ñoom mais ñi nga xam ne yàlla may na leen au moins xam nañ as tuut ci wàllum développement local xaw nañ as tuut ci lu ñuy gérer mairie ñooñu ngal la ñu jël seen fit takk ko te jéem a taxaw nag jàkkaarloo góor ñi ndax lu góor mën jigéen mën na ko te jigéen mooy politique mënuñu war a mu waruñoo mën a toog toog rek di dund ci tàccu ak ci gunge. dafa doy waaw mais yéen seen président bi ngeen koy defal nag ñu ëpp si yéen leen seetaan moom ay presque moom lay jéggaane. Macky Sall déedéet lu jëm ci élection local moom bu soobee yàlla Macky Sall ah, ña nekk ci commune ba da ca liggéey da ca sonn ñooñu lay jàppale man gëm naa lool. te Macky Sall nee na deuxième mandat deuxième mandat jigéen ñi la ak jeunes yi. donc comme deuxième mandat jigéen ñi la ak jeunes yi jigéen ñi képp ku fi taxaw. yàlla may la nga nga taxawal sa bopp gëm gëmal sa bopp dëggal sa bopp ne lii bëgg naa ko defe naa Macky Sall war na la ci mën a jàppale ay jigéenu xamante ni Macky Sall defalu leen dara te ba dara du dara ak Macky Sall est-ce que na kóllëre fàttaliku parti bi nag am naa ay jafe-jafe loolu ku ko waxul dangay dangay jéem a nax sa bopp rek ndax nit ñi moom kenn mënu leen ndax ñu ngi yor seen bët di xool jafe-jafe yi bëri na jafe-jafe yi nu mu nu mu fa demee parce que responsable yi xëy na ñenn ñi la ñu war a matale matale wuñ ko coow lii bu ko defee day bëri te boo nekkee ci parti yow amoo koo waxal amoo koo diis sa soxla gisoo ko ku la jàppale dafay metti donc pour nga génn di wax ci rajo yeeg tele yi dafa yomb donc ñun ñu ngi ñaax vraiment suñu leader yi ñu nekk responsable yi ñu nekk ca département ba nekk national nañuy jàppale militants yi nekk ci base bi ndax sonn nañu gisuñu ko leen jàppale gisuñu ko leen dimbale dañuy def ci parti bi ba sonn duñ ci gis dara politique tamit nag boo koy def yow yaay décider sa bopp ne damay def politique waaye nag booy def politique tamit du tee ña nga àndal di ko def dañ la war a mën a geesu yenn saa yi di la geesu. loolu dafa war parce que loolu. boo ko defulee mais leen Macky Sall te gisu leen ñi mu jege yantool am na ñoo xam ne moom mën nga nekk mën nga dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ñu déglu la président tam pour nga gis ko day jafe loolu tax mais ñun du moo tax ku mer ñu war a toogee moo tax wax ko si mbedd mi. waaw parce que fa ñu war a toogee di wax dañ la dul may sax nga wax. moo tax ngeen nekk boo commencé wax. wala nga wax say dëgg ñu ne la kii dafa soxor kii dafa maa yéene lu bon kii bëggul ma am dara ci loolu lay mujjee comme ci loolu lay mujjee rek nit ñi am ñu lu dul tele yeeg rajo yi rek. pour wax seen seen problème. léegi loolu rek la léegi euh, mairie bu commune euh, Pikine Nord gestion mairie bi mairie bi nam yore commune bi ndax jàpp nga ne jaar na yoon. su ma jàppoon ne jaar na yoon du ma taxaw ne damay laaj mairie bi parce que tamit du politique rek moo tax ñuy ñuy ñuy laaj wu nit liggéeyee nañ ko ne jaajëf liggéey nga mu gën a dolli mais boo dëkkee ci commune nga gis ne diwkat nekkoon na fi gaa jóge fi ñëwaat nekkaat fi te te la mu defoon rek la defaat wala lu yées la mu defoon sax la def il faut nga jóg nag taxaw ne lii nag dafa doy il faut ñu changer ko te loolu pour nga def ko il faut nga taxaw wane sa bopp ne candidat laa jël maire bi pour defar ko. pare nga pour jàmmarloog Amadou Diarra. parce que parce que. pare nga pour jàkkaarloog parce que man dama seetlu ne nit nga def mandat defaat beneen mandat dégg nga mandat wu 5 ans bii 2014 la ñu la ñu faloon maire yi ci élection locale yi 2014 ba heure bi boo demee Pikine Nord dara changé wu fa. doo fa gis dara à part la nga xam ne nii président Macky Sall def na ko ci commune ba ñu gis ko muy tali yi. tali karo yi ñuy tabax foofu làmp yi gis ngeen ko làmp solaire yi yi ñu installé yooyu yëpp ci programme bi la ak yeneen ak yeneen mais la nga xam ne nii jëlee nañ ko ci suñuy ressource te Pikine noonu nekk commune boo xam ne nii am na ressource macha allah marché Zeng baa nga fa bokk ci marché yi gën a mag ci ci Sénégal banque ya ne fa leneen ak leneen nekk fa am espace bu mag muy technopole ba arène nationale ba nekk fa leneen ak leneen nekk fa donc waruñu mën a toog suñuy ressource di dugg ci mairie bi te duñu xam fu jëm amul benn investissement bu ñu réaliser amul dara lu ñu fa tabax amul dara lu bees lu ñu fa def heure bii nag fi ñu toll nii nag waa ji nag moom mu ngi foog ne ne moom te te tey la élection yi ma ngay kërti kërti fu ne mu dugg fa mais nag dafa trop tard ndax ba mu ko falee 2014 gis ñu lu mu def du bàyyi ba ñu ne élection yaa ngi waaj nga naan yaa ngi liggéey loolu amul sens dangay ngay nax sa bopp nit ñi nag léegi kenn mënatul leen nax buñ la falee pour nga liggéey at at mi. ci boppam at miñ la fal nga xool nooy liggéey at ba ca topp nga seet la nga war a def nga def ko at ba ca topp nangam nangam ba at ma jeex soo toogee nga ne année bii def naa li at bii def naa li at bii def naa li ndax lépp xëy na mën na mutul ma mënul mate ci première année bi nga xam ne ni ci lañ la fal xëy na dangay nekk di defar di réajuster di xool état des lieux ngay xool lan moo jag lan moo jagul ressources si fu ñu tool nu mu demee xëy na at boobu mën nañu ko ba may. mu doon at boo xam ne yaa ngi xool nooy doxalee mairie bi. mais xanaa yeneen ñeenti at ya ca toog topp xanaa euh, moyen dana dugg xanaa di nga am loo def waaye dara marché ba tey la waar gën a ay tey la gën a rëbëjoo tali yaa nga noonu amul bale amul dara nit ñi amuñu fuñ jaar. problème yi bari na. jërëjëf soxna Maguette waxtu yi jeex na ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. waaw yow tam maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci occasion bi ma may pour ma ñëw fii te euh, waxtaan ak askan wi askanu Sénégal. Euh, ci li nga xam ne ni moom mooy sunu lépp loo xam ne dafa war a jëmale sunu réew ci kanam ci la ñuy dox ci la ñuy wax xëy na dañ naan wax ji bare na mais wax ji barewul ndax toujours day baax nit ñi aussi di waxtaan di xool nu ñuy jëba jëmale réew mi kanam donc maa ngi lay remercier bu baax di la gërëm. jërëjëf euh, soxna Maguette Dia yi mu nekk responsable politique APR ca Pikine Nord bokk ci cadre APR yi jërë ngeen jëf euh, jàmm ak jàmm seen émission pencum réew mi la woon Abdou Khadre Rex ci kaddu gi Mamadou Diaw Diallo ci wàllu technique bi.